man fi ma jógee woon maa ngi jógee woon si euh, Tata yi aftu laa doon nekkoon di dawal ligne 2 mais am na différence bu bëri bëri bëri diggante diggante mm, oto Tata ak BRT bi BRT bi ay conditions yu baax lañ ñu nekk euh, lépp loo xam ne amuñ ko woon si Tata yi léegi am nañ ko si euh, am nañ am nañ tamit ay garantie te te teg nañu si yoon ko en fait. ba ñuy dañoo woo ñu def ay tests. test bi métti woon na trop parce que ñu bëri dañoo yaakaaroon daa yomb mais yombul euh, def nan formation def nañ test ñu jàll ñu def formation parce que un mois ñu dugg classe jàngaat comme jàngaat ko ba na xam parce que bu njëkk ba nam ba mu amee permis yàgg na mais amoon xam-xam expérience amoo ko woon. mais actuellement nii sama expérience dafa gën a jóg sama expérience dafa gën a jóg moom mooy lépp loo xamante ni daanaa ko def si si dawal du def. Euh, ñii daal ay jàngat daal lañ ñu jox ko dañu gën a yokkal. sama yeneen chauffeur yu nekk si yeneen koor yi euh, li leen ay wax lenn rek la moo di ñu gën a gëm seen bopp euh, xam ñu euh, ñu gën a gëm seen bopp. ça veut que ñu bañ a bàyyi ndiku parce que jaar-jaar fa baax nekku na da ngay jékki rek mu sotti da ngay jaar fu metti nga nga yëg lu pour nga agsi fii nag il faut nga ramper. mais nag wax dëgg yàllam képp koo xam te ne gëm na si lu muy def luy yàgg-yàgg dafay baax quoi. jot nañ ñeneen ñi def formation jot nañ ñeneen ñi def formation parce que actuellement nii euh, xëy na gars yi ñu solo soxlawaat ay yeneen conducteur mais bu kenn bàyyi nan nañu déposé parce que amul ku ma am day ak ku ma am day xam-xam la ak euh, ak gëm-gëm waaw ak mën li ngay def la quoi en fait.